ngoog ndeysaan lu mu defal ñaa ci géew na lu jox ñaa bu ndaw laa ilaha illallah baax sëñ Cissé nag ñaa bu ndaw doomam la de ah doomam la ndeysaan laa ilaha illallah ay waay ñaa ndaw waaye am na koy diwoo ay mbërum sëñ Cissé mi laa ilaha illallah bu ngi koy expliqué sëñ si lan lay tegtal ñaar bu ndaw nii ay lamb jël na ko de joxaat naa ko mu dem maa ngi nuyu Gàllaay Mbay taalibe Bamba wuri ma dem ki ma dem gën taali bàkk war mbaam Babacar Mbaye Moustapha Gueye Niang bu Ndaw ak Tapha Gueye Tapha jël na ko jël na ko jël na Niang <laughs> <laughs> waay ay ñaa ay waay Niang ay waay Niang waay <laughs> Niang kii mooy ñaa bu Ndaw kii mooy Niang bu Ndaw kii mooy bu Ndaw ndaanaan la barkaay waaye kii di Ndiaye Doole jóge ci bi xam nga Ndiaye Doole li mu ko bëree Karim day métti action bi ngay sax mbër mu waaw mbër mu diis ba bëreeg moom da koy forcer te forcer baaxul baaxul il faut nga am benn lecture de jeu boo xam ne moom mën a bëree moom moo ko ciy génnee moo ko ciy génnee sinon du baax ci moom dëgg la essayé léegi loo Karim boobu mooy tuddee en combat bi Ndiaye Doole ak Lo Karim mu ngi bëre combat bu metti ndeysaan Lo Karim ak Ndiaye Doole ndeysaan moytul moytul moytul moytul moytul moytul moytul moytul moytul moytul Ndiaye Doole mbaa dul ka daanu moytul moytul Lo Karim la ilaha illallah kuy metti na de ay ndel yi damaa ragal ay ndell ndell yi bu génne damay daw. jaay doole moytuwul li ngay baaxul bu la fu la egg sori na bu daan jaay doole liggéeyal na jaay doole liggéey bu egg fu la sori na de. Ah. fii. waaw action bi loo kër am ci waaw lu bëri mën na am mais tamit day bëri wàllu blessure problème bi loolu la. jeexagul ba léegi. mais nu demee nii. mais nag waaw abu na la say nit gerte. nañ lay defal lu baax abu. abu talatoo lekk talatoo naan. abu fu la fekk yaa ngi bégal sénégalais yi. la neexoon ni ci làmb rek laa yem. mais yaa ngi jàppale ñëpp abu. des fois ma jékki-jékki gis na nga jël ku mel ne Galaye Mbaye mu wax lu baax. te loolu dafa am solo. te micro bii da nga koy bokk. dëgg la solo. dëgg waaye démb damaa ñëw cee sat bi sama yaram daw. sama xel dem ci Serigne Modou Niang. Oh. nga xamante ne nii moo taxawaloon démb làmb ji waaye gis nga fekkewu ko. dëgg la yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér. yàlla yàlla ñu gudd fan ak wér. ak wér la. waaye nag ñoom ñaar seen combat ngi bëgg a yàgg. muy bëgg a yàgg. jaay doole li muy jaay doole li muy def wóorul. xoolal ci génn lay mujj. mais lii tamit lii tamit. du yoon mais lii tamit règlement bi war nañ ko xoolaat. du yoon de jàpp nit buux ko ba mu génn. waaw du yoon ko loolu tamit lu war a xoolaat la. du du yoon. jàpp nit rek buux ko ba mu génn. ñu arrêté géew bi 30 mètres sur lay def. waaw déedéet maanaam 6 kër xaj na si ku génn yaa bëgg a génn. dëgg la yooyu daa bari mais génn bi daa yomb. ku génn yaa bëgg a génn. ah ku génn yaa bëgg a génn. parce que ma doon arbitre. waaw ki buuxaate ba mu génn laay affecté. déedéet ki génn a daa di nga xamante ni ñoom ba max rek lañ mën man ba may bëre mu musuma sañ a buux su ma la dooree njiin dañ lay fori ak bu boobu buux soo bëgg ma daan la bu bëgg a génn yaa bëgg a génn waaw dëgg la 30 mètres la géew bi di def 30 mètres dëgg la ñeenti kër xaj nañ si man su ma gisee bira dama naan ko xoola bira dimbali ma ngir yàlla rek ku génnati non buñ ko affecté lii moo tax MMA ñu def cage pour bañ daw <laughs> waaw waaw daw tamit am na daw am na. faax am na. boo génnee rek yaa bëgg tëbal tëbali am na. loo Karim na xam ne temps jeex mu ngi commencé jeex. ah. taxaw ko mbot ko am waaw taxaw mbot am na. non man su ma am doole mbot ma buux. ah yow musa buux. saa bu ne bu dee dama lay mbëkk. non de de am na buux yoo xam ne say loxo. Ah, maanaam say loxo ngay yebal. doo buux. am yoo xam ne buux. waaw yow. eh boobu dal de. Eh, eh, eh, bokk ma mbër mi loolu dal na de loolu dal na de. ñu ngay xeex. ñu ngi ba jël na tànk ba fàtt. oh waay waaye xale bi am Lô Karim daa mën a bëre nag. ba ana 16 ba xaaral ko aale. naa bëree. takk ba takk bi na appliqué. waay dinañ demoon à zéro. saa da koo bëgg a de. mais mais loo Karim mais eh, mais loo Karim daanaan la de. Oh, da koy daan. dana ko jël bu rëy. jël bu rëy la ko daan. jël bu rëy la ko oh. loo Karim jël bu rëy Babacar Mbaye. jël bi rëy na. jël bi rëy na. Mbacke. yéen a ñëw ah eh, Clémenceau. na jaxasoo xeex ba. ah Boy Diop. na bàyyi xel ni jinne lay bëreel jinne. bu mu jàpp ci conc yi bëgg a eh, na jàpp ba mu dëgër. jinne da ngay jàpp ci geñoom. oh dëgg ko kubu daal. mais sànq ba léegi Clémenceau mu ngi koy dóor te Boy Diop faywul da koy woo ci jàppante bi siggi ko sànq tuur na ko tuur boo xamante ne ni bu ñaaree boo sànq Boy Diop yëmbal mer. Boy Diop moytu. waaw Clémenceau bu koy sàcc da koy

lii rëy moom moo waxal Bécaye xaw ma Modou Mbaye nañ tela mais duma bandi waxal ma ko gaa yi ñang baaloo ngong kii doomu nday gidoo seeraas la ñang baaloo ak boy sebi ndeysaan ak boy sebi maa ngi nuy àdduna di nuyu mbokki damaa ne ci làmb ji damaa ci làmb su ma génnee woo la ñang baalo ak booy sebi ndeysaan booy jom daanaan la mu ngi bërek daanaan Clémenceau daan na fi papa booy jënd jël bu daan fi ay daan booy sebi pernante la mais duma bandi waaw dégguma ñang baalo moo ma waxoon moo moo waaw moom nante laa duma bandi duma bandi gaa yi ñoo koy jiiñ nag gaa ñu waaye mi ngi bërek ndaanaan muy bërek ba boy sibi muy boy sibi ndeysaan di combat bu neex combat bu neex ndeysaan mais ñambal deux pieds la ndeke de ah deux pieds la de waaw deux pieds la waaw sang daa teg beneen pied beneen pied sang war ko ndaanaan la loolu jiir day am mooy bëri loolu mooy def loolu dëgg naa bu naa jeex ah, door na ko mu daanu door na ko mu daanu laa ilaha illallah eh! door mu eh! yéen ki nanti la. la mais du bandi. du bandi nanti rek. dañ ko koy jiiñ. laa ay ñang baalo. ay waay ñang baalo mi li mu def lii lan la. ñang baalo li mu lan la. da koo dur mu daanu. oh. kërëb la def kërëb. oh bam.